que <coughs> d'abord damay nuyu bakari Bakary quoi euh, voilà di wax ni dégg naa wax mais d'accord ma moom ci lu bare dit. bare bare lenn rek la d'accord moom ci li mu wax mooy épisode bi wax ci ci ci la en marge de l'assemblée générale de la CAF bi ñuy fale Augustin Rabat Rabat maa ngi foon yaa ngi foon Rabat mm, ok d'accord ba ci lay génn ci maam Adama ci lañ xam voilà très bien mm. li loolu moom dëgg la mm. li wax foofu yëpp dëggal naa ko vraiment dëgg la ce jour là j'ai apprécié ça parce que xaaruma loolu ci moom waaw moom li tax Augustin nekkaat candidat ci mandat bale passé convaincre nañu bari ci loolu ci wax boobu wax pro je que loolu dama koy dama koy nangul mais à part ça li ñu wax yëpp d'accord ma ci on est vraiment on se connaît il me voilà il m'apprécie je l'apprécie mais on est on est en désaccord sur beaucoup de choses d'abord si tu li mu affaire affaire en Mauritanie Augustin moo sans que ça soit il semblerait il semblerait même, c'est du conditionnel pur dur il semblerait d'abord il a commencé par présenter ses à Je Je j'estime que c'est trop facile

Sam Sedine Diatta ñu ci cité def na démenti nee na mosul fekkee loolu donc muy ñaar donc loolu lu muy wane rek mooy ni xaw na léger quoi ci li ma jàpp te moom un général de sa trempe warul dugg ci yooyu surtout que xam na gars yëpp xam na leen mën na ko vérifier. Ah, je pense déggaat nga tamit président bàyyi ma ñëw rek. waaw mais déggaat nga aussi président Kosso mu ne ka toogoon ci waxtaan ba jot na ko waxtaan na ak moom lu bari.

la fédération ne cherche à charmer personne nous li ñuy cinq coupes d'Afrique en une année kay wax dëgg le ku mu charmer wul ça on l'a réussi c'est une prouesse mondiale amul benn équipe équipe équipe bu gagné cinq coupes dans un continent ci benn année Amoul, ça c'est le Sénégal a réussi. sans gagner. mais sans gagner d'accord mais gagner mais Togna gagner c'est voilà au contraire ça c'est je pense que c'est ça le mérite des gens. Mhm. c'est ça le mérite des gens lolu lañ ko reconnaître donc amuñ ku ñuy charmer. mais président ku 10 ans gagné woo. maintenant ben at gagné aussi. maintenant suñ ko tasee ci atti yi kon. maintenant moyenne sax do ko am. maintenant bien def ni c'est pas une opération c'est justement pour rétablir la vérité parce que xam nga capacité de nuisance su gars yi dafa dafa metti pour une première dafa bari. mais pour une première waaw dañu wax ne rek am nañ luñ mëna wax am nañ lu ñu wax. mais pour mais pour une première. waaw mais eh, mais xam nga nag ah, yow kii nu mbay. tuddati hmm. yow animateur nga. animateur xaaral rek non. mais xam nga yow. Bakar li muy wax yëpp. wax na presque lu ma dix minutes. répliqué ko benn yoon. mais xaaral rek waaw d' accord mais bu ñu téléphone ko dagg ko. la laisses dérouler comme il veut. mais dagg naa ko léegi a nekk vraiment animateur nga da nga war a taxaw sa hmm. war war far fenn quoi déroulé li wax leen. ah mais daggee nii di ma kii nii. dafa dafa dafa foofu Bakar yi. d' accord laisse pour wax ne li mu wax yëpp vraiment li ci li ci d'accord rek moy lolu amul leneen <coughs> donc lolu ñun c'est ça la vérité benen bi quand il dit que on a fait effectivement texte xam nga point la sànq boo gisee ma ci wax comme point la ci fil conducteur bi damay xar ba ñëw ci point bob wax ci texte liñ ci wax alors quand il dit Abdoulaye Sow moo ne lii Abdoulaye Sow ce qu'il a dit c'est très clair il l'a dit en comité exécutif ñu dégg ko moom nee yi je ne suis pas d'accord quand vous dites collectif des clubs amateurs. Donc c'est ça sa position. C'est illégal. C'est parallèle aux instances de la fédération. Mais quand vous dites collectif des présidents de clubs amateurs, vous avez un petit droit, vous a une liberté. C'est ça qu'il a dit. Il ne donne pas raison aux gens. Il dit que quand c'est un collectif, les gens sont libres en tant que président de se retrouver, de se regrouper, de Wachtan. Coco, liberté, liberté, c'est une liberté. Mais quand vous dites le collectif des présidents de clubs amateurs, là, il n'est pas d'accord. C'est ça sa position. Je pense que Loulou n'est cool. Alors, dilapider les. Bon, heureusement qu'il a dit que personne ne peut dire que la fédération dilapide les fonds. Bon, <laughs> d'accord, à chaque moment. Maintenant, contrôle, contrôle, mais c'est normal. Mais ça, dit il bañ ça contrôler sax yow suspect mais il faut contrôler ça. nous ne sommes pas. encore que ñun contrôler wuñ parce que nous devons contrôler nous contrôler nous ñuy contrôler nous devons koy Nous devons contrôler. jibul ñi dañ Nous devons comment ça fonctionne mais comme ni l'ai wax devons contrôler. Nous bu contrôler. wala dañ def justement rapport de bu rapport génnee ñu ne ah fii da ngeen a jum fii contrôle c'est pour corriger. d'accord mais